li tubaab di wax hommage fàttaliku nit ngir darajaale ko bis rafet na ñu wax kooku nu mu bokk ci mbir mi ndax Cheikh Fall mooy datt bi ñëpp daje waaye nag calal gim jaar ba ak Cheikh Fall mat naa leeral bu gàtt. sëñ Mbacke xarit Diop mi nga xam mooy wajur sëñ Mounda kat soxna suñu wax xarit Diop mooy wajuram doomi ku ñu wax maam Assane Diop di doomi Tafsir Makhtar Diop maam xarit Diop moom yi di wajuru sëñ Mbacke xarit Diop. moo ku ñu wax soxna Aminta Diop ak soxna Astou Diop ak soxna Maam Say Diop ñoo bokk wenn way jur ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñeent ñeenti jigéen ak ñaari góor ñu bokkal ndey te bokk ñu baay bi nga xam ne dem nañ ba màgg maam Assane jóob bàyyi koo fi dénk leen rakkam ñu wax maam Sayer Diop mu yor leen ba toll ci war a dem kër Cheikh Rahane Fall Baal mu ñëw sàkku ci ñu bokk ci njabootam mu ñëw waxtaan ci ak maam Sayer Diop. maam Seer leeral ko ne kat ñii kat maam Assane Diop leen dénkoon suñu tubaab jébbal leen ko ci ba ñu ndaw seen baat sëñ Tuubaa ko yore dem ci sëñ Tuubaa daanu ne la waxtaan ci ak moom sëñ Tuubaa toog ab diir waat ko ko lu bokk ci tafsir Maxtaar Diop de ñooñu alxuraan lañ leen di cane maam Seer dellu ci Sarafal wax ko ni ko sëñ Tuubaa di nee ñooñu waa kër tafsir Maxtaar Diop nditu alxuraan lañ alxuraan lañ leen di cane Sarafal bindu lu ñaari ñëw jox ko maam Seer Diop maam Seer dellu soit ci sëñ Tuubaa ku tedd ki jox ko kaamil yi mu téye ko ba mu ab diir dellu si ni maam Seer boo demee koy jox soxna Xadija nañ ko jox Cheikh Ibrahima Fall xari la ñuy wax ne waaye sëñ Tuubaa Xadija la tudd muy maam xari Diop bi mu ñëwee ñu jël soxna maam xari jox ko Cheikh Ibrahima Fall mu am ci sëñ Assane xari a sëñ Mbacke Diop xari ak soxna Boussa Fall sëñ Mbacke Diop moom sëñ Mbacke sëñ Mbacke xari Diop moom yi nag mooy waajur sëñ Boussa Fall mi ñu bis jii di wajjul suñu mbàkk mu defaal mii nit nag suñ ko darajaalee bis njabootam gépp lañ ko darajaale waaye la tax ñu darajaale du ñax doomi soxna kat nit koo xam ne ci alxuraan nga doon liggéey di jaamu yàlla di dund xam-xam ba ñoo wax doomi soxna loolu ñoo ñooy doomi soxna way mu am nag ak soxna fat sàmb soxna su baax muy wajjul suñ ko defaal di doomi suñu madun sàmb nga xam ne sa njabootam sëñ Tuubaa tànn ñoom ku nekk jaali kam leen liggéeyloo ca alxuraanul karim koo xam ne sa maamaat mi jur sa way jur wu góor alxuraan lañ ko cane sa maam mi jur sa ba jur wu jigéen alxuraan dana liggéey ci daal di kaamil sëñ Tuubaa doomi soxna foofu la ci garfet aku aku aku sell mu des nag seen jikko yu rafet ak seen jëf sëñ Gunda diir bi fi nekk yëpp daanaa metti lu yàgg ci waxtoon loo xam ni way juróom sëñ Mbàkke Xarjo mii xamoo ko boole Cheikh Rahim Fall daf daan wax sëñ Mbàkke Fall ni man sëñ Mbàkke Fall day su ma sañoon lépp lu ma baaxle ci loxol sëñ mundu saafaar sama wax ju baax ji lay mujj loole nag sabab ba mooy sëñ mbàkke at bu jot daa jox addi sëñ mbàkke sëñ saafaar magam li ca gën a barak a fas la ko daan jox am at moo xam daa fas sàll wu yéeme buñ ko misaal ci jamono tey jii li ñuy wax waruwaay yi wax naan ay 4-4 wala 8-8 ci jamono tey misaal loolu lay demee muy fas woo xam ne dafa yéemewul lépp ñëpp du ko yéem du ko sëñ mbàkke xoole xam ne suñu saal rek ci yàlla mu jox ko magi taalibe yi nga xam ne ay taalibe di njabootam nga xam ne kenn ku nekk lu raw lu baax lu ne sa kilifa nga ko ñuy waxtaan nag waxtaanu taalibe naan sëñ Mbàkke de mënoon naa joxe addee te façon woo mu téye ko boo ko sëñ Mbàkke Fall déggee mel na lu tàng daal di wax ne man Mbàkke de suma sañoon lépp lu ma baax la ci loxol sëñ Mourou Safaar sama mag ju baax ji lay mujj loolee nag noppi loolu di ko doxee ba jël ay njabootam naa taw taw doom baax yépp jox ko ko muy sëñ Mourou Fall mi di taawam ak sëñ Bisaal Alxuraan mi topp ci moom jox la sëñ bu Safaar mu boole leen ak doomam ñooy itam sëñ Cheikh Fall Baye ak suñ Moudou Amine Tafal yóbbu leen ci si Ibrahima Mbaye bari na suñu ci wàllu alxuraan waaye fañ àggale alxuraan te ma daje ci ci lu wér moom moo si Ibrahima Mbaye fañ àggale alxuraan fi lañu bind kaamil man alxuraan nag mënu ta weesu jàng alxuraan ba tari ko bind kaamil li alxuraan suñ munda itam kaamil ba mu bindoon jëbal suñu saafal way juróom bu baax ko joxe woon bi mu dellu see màggalu Cheikh Ibrahima Fall gi ñu si ñeent fan tam xarit daaw jee gi nu weese si Cheikh borom kaamil dañ doon wàcce kaamil ba sëñ Moustapha bindoon keroog moom lañ jënd di ci wàcce alxuraan bi loolu mooy firnde jë nga xam na yàlla defal sëñ Cheikh ndigal nag denc mag ñoo lu bari ci denc mag mi ngi ak moom loolee mënoon nag ci loxo sëñ Mbàkke mbaa na ci loxo sëñ Bissou alxuraan mbaa feneen waaye loolu moom la yàlla dogal moo ko denc te mi yeneen yoo xam ne yi ñu bari nañ ko dégg seen mu sëñ Cheikh Ibrahima na yàlla gën koo a baax nag waaye bu ñëwee te toppatoo si doom xam ne suñ suñ suñ Mbàkke Fall xarit Jóob moom yi lu ma sant suñ Mbàkke Fall suñ Moussa la ko jox sëñ bi de bi mu dikkee itam sëñ Sa Fall baay góor moom ma ko yàlla boolee loon sëñ Moussa Fall daa daa di jël sëñ sëñ sëñ sëñ Gunda boole ko sëñ Sa góor jël sëñ bi si waa Alxuraan mii boole ko sëñ Mudu Aminta Fall bi fii ne lu ma baax la lu nekk su ma soñ ci loxo sëñ Moussa Fall lay mujj ba léegi dara sëñ Mbàkke Fall génn ko sëñ Moussa Fall sëñ bi si waa Alxuraan nga nee sëñ sëñ Ngounda Fall mi borom bis bi mu nga ne ci gannaaw sëñ Cheikh Ndigal Fall ci kër sëñ Moussa Fall loolu firnde jooje nag sëñ Ngounda wax di bi fi nekk lépp mu ànd ak sëñ Cheikh Fall mën naa wax ni mosuñoo tàggoo ci ndaw mosuñoo tàggoo ci mag la sëñ Tuubaa ak sëñ maam Thierno waxoon ni mosuñoo tàggoo ci mag teel nañu ànd te mosuñoo tàggoo ci dara mosuñoo wute ci dara diggante sëñ Cheikh Fall daay góor sëñ Ngounda itam yàlla def na loolu seen mbir yëpp benn la woon la sëñ Tuubaa waxoon ci diggante yonte wax ni xiyaarun tànneef la ju bàyyi ko ci tànneef joo xam ni ñooy sangub ñan jamonoonteel sëñ Ngunda kat ak sëñ Mbàkke Fall xarit mii ak sëñ Mudu Tafsir Maxtaar Jóob mi a kuñ ko bokkal ku nekk te yoon yi kuñ ciy tàgg di la may daraja maroon moo ci mën a am diw taaliba mu ko weesu taaliba lañ ko nangu nit mooy nangoo topp ndig toppin war a doo xam ni loo digal ma def ko loo ma bàyyi ko sëñ sëñ Mbàkke xarit la àndoo suñu saafaal sëñ Gounda Fall mi noonu ànd suñu Cheikh Fall Baye ji wér a wér a wér te loolu maa ngi ciy joxe misaal moo xam ne jàngale goo xam ni ku wax ci mbooloo ku ne war nga ko fàttali suñ jëruñ mag ji di woon dafa jàngale mu leer moo xam ne mën nay fàttali ci mbooloo daa waxoon ne man bi suñ Sidi Muxtaar nekkee man sama kilifa dama ko jox sama bopp bàyyi koog boppam bàyyi koog sama bopp toppin war xat ni mu tuwee si loolu jox sa kilifa sa bopp ba koog boppam bàyyi koog sa bopp loolu mooy toppin wu rafet te sëñ Tuubaa mi jàngale mi mi moom taalibi daa waxoon ni waddu waddu wakkun la daa sayxi ka maytin wuddi haa bay na yedee xaasi lii tantafiya diggante sëñ taal beeg sëñ moom dangay mel néew buñ sa ci loxo koy sang bay na yedee xaasi bu mu ko wëlbatee mën nga faa jëm taalibe bu noonu nga xam sa diggante ka nga dox sa diggante yàlla ba xam mel nga noonu wala meloo noonu soo meloo noonu murid saa lañ lay tudde ba dee jullit jullit àqal lay tudde loolu nag sëñ Wula Fall noonu la àndoo sëñ Cheikh Fall Baye bu nekk sëñ Cheikh Fall Baye Góor seet wax na ne suñ ne mbir su woon ci moom ñaar dootuma sonn ci dara ba ko ñaar wax na ne nii suñ ko ne mel de li ñu wax perkaal moom la saa bu teew fi man léppam teew na ku ne danga ñëw ci man Cheikh Fall Baye góor andi dara bàyyi ginnaaw dara ba mu def suñ ko ne fu teew fi man léppam teew na li tubaab di wax disponibilité nag mooy jox si nit boppam ba nag ba ko su lépp suñ ko ne loolu doxoon diggam suñ Cheikh Fall Baye góor loolu moom ko ànd ko constat ànd ak suñ Cheikh Fall Baye góor ak ne ci jotaay xam nga ni suñ ko ne mu toppee suñ Fall ba woon ca dara taalibi góor xit am ak sa kilifa te lu mu la digal nga def ko noonu tax nga bàyyi ko ndongo dongo ko yàbbal ak njaboot gi tam lu ma sa liggéey ngir yàlla suñ saafaa la ko jox saam geet firnde la ci dongo yi fa yoroon dañ leen liggéeyloo bu dee mbay la bu dee gerte la bu noppee ba jàkk ko bañ xool ko dañ ñoon suñ saafaa jàkk baa ngi nii ña fa lañ ko fekk ba juko mbaa ñun lu ñu koy def def ko suñ noppi na si lu ñu ko mën a jox jox ko suñ saafaa bàyyi góor naa roy baax mat naa fàttali a jaar ci yoon tey àgg da ngay toppandoo kuy dox te Tuubaa dee la wax omal toos bi ak seen fasal ku bëgg àgg dangay ànd ak kuy dox jëm ci ci àgguwaay ku demul fenn mun bu kenn fenn mi ngi gërëm la sëñ Mbàkke Fall mu jëwriñ sëñ Gunda Fall ji tax na kenn mënut a fàttewee juróom sëñ Gunda ba fi jógee léegi yàgg na fanweer at ak ñeent wala fanweer at juróom ci ren te ba léegi si la bàyyam doon doxal da ko yokk waaye dara wàññeeku ci diggamoon sëñ Cheikh ndigal itam maa ngi ci wax ne sëñ Mbàkke Gunda kat ngërëm yi mu laqagun si ne ci wa jël ko ci na bopp ni li ma dégg lépp cay waa dégg naa ci way juróom bu baax mi sëñ am di xalifaal mi borom Pastef bi mu ne sëñ Mbàkke waa waaw sëñ Mbàkke Ngunda mii waaw góor sëñ Mbàkke da nekk fa nga xam naa na nga fa nekk waaye yoon li su may su ma ngi bàyyi woon fulla ak jom ak Pastef rek lañ koy yore loolu nag naa ci maa ngi lay gërëm baax fi yoon waa ngi noonu barki dem boo njaay rakkam sëñ Cheikh Xadim dafa yitte wax na maa moom yàlla ci kër sëñ Fallu daje xam ne mu ni takk deer yi sëñ Fallu yore woon at mu jot dañuy daje ñaari yoon ma daje fa ak moom sëñ Cheikh Xadim ban toogee ci saal suñu fàllu ba aaj ji ko ma faj na ko sama xel demu ci lu may sëñ Mbàkke Bunda ma ko sëñ Cheikh man de sëñ Mbàkke bëgg naa ko dimbali ñaar ko baax ndax mi ngi dox te jamono bari nay di ma bëgg mu jàll mu ma barke Cheikh Ibra Fall sëñ Mbàkke de neex naa dimbali ndax daa tege ci yoon nit bu tege ci yoon koo dimbali dana àgg li ci des mooy maga ñii mu bokkal kër Cheikh Ibra Fall sëñ mu du yàqu ndax fa mu war a nekk ma nga fa def bi ci des nag mooy ngërëm ci may daane la mooy sëñ Cheikh ndigal xaal mi nga xam mooy buntam te alxuraan daa wax ne waa tool bu wetu dugg ci mu nekk dana jaar ci bunt gërëm waaye moom mi jaar sëñ Cheikh borom ndigal faal wax na sëñ Mbàkke wax nekk mën na fa nekkal te fu mu nekk sama lépp na fa jag naa sant yàlla bu baax te ba ànd ak moom ci ci ci ndigal ak ngëm ak pasef ak nangoo topp ndigal loolu sëñ Cheikh ndigal wax na sëñ Mbàkke di fu mu nekk mën na fa nekkal mat naa sant yàlla bu baax a baax a baax nag ndax ànd ak si kilifa ba noppi mu gërëm la xam ne fu mu wuti nekk ba yàgg fa nekkal tam fa war a nekk ba fa nekk noonu la ngay mel mat naa sant baax aw yow aw ci yoon nag sëñ Cheikh Fall Baye Gounda daa wax ni aw yoon na xamul ku xëy xamul ku gont ku ca jaar say dox rek la wax yoon mu mel noonu ndax aw yoon xamul ku xëy xamul ku ko xamul ku gont ca jaar say dox rek la xam juddoo ci yoon weeg doon ci mag loo fi yàgg yàgg yàgg ku jébbalu tey te un peu fu dox mën naa la jiitu kon nan xam ni ak murid ak jaayante la jaayante nag dellu ginnaaw bokk ca xàcc bokk bokk ca nit lu mu jaayante la woni moomutul lam jaay la mu jënd ci boppam te alxuraan da wax ni inna allah astara minal muminina anfusahum amwalukum benn mu jannat yàlla nee na jëndal taa ji nit yi ci seen bakkan yi ak seen alal nit gën te bëgg ci boppam lu muy alalam ak bakkanu boppam nit nag lu mu attana dee attan caa alalam bu ñu wootee laaj ñàkk dong wala sonn war nga caa noonu te yoonu bàyyi faal gudd gàtt man na saa wax sax ngi jàngale waaye a ci maye dara yoon Cheikh Fall yoon ñoo jëf rek lu ubbi woon jëf jël la ko mooy dëll moom man amee la saalin su si man asafa alayha lu waay def ci lu baax yow lañ ko dencal ku def lu ñaaw tam dañu ko tegal fee yàlla tooñul kenn na ngeen góorgóor lu baax ci topp ndigal yi dafa seen waajal bis bii seen tuweer yi itam li ñu koy waxee mooy séentu weer lañ ko tuddee waaye foog lu ndigal ak waajal ndigal sëñ Tuubaa lii mu joxoon Cheikh Rafal te fas ko yéene jëfe te kër Cheikh Rafal bu nekk mbooli këram buntu kër Cheikh Rafal kenn daan jëf yaa ngi jëf ba ci sataat yi kër goo dem la fa Cheikh Rafal jëm nañ jëf yàlla ko yàgg gën a man yàgg koo ak bokk yi ak sëñ man jaay ngee ñoom ñi nga xam mooy daal sukuraal bi ñu organisé mbir mi sëñ Mbàkke ne dafa la ngeen ko sedd xolam bëgg na ci lool ànd na si yéen seen liggéey kilifa yëpp rafet nañ ko waaye seen jëf itam seen xol set na dal na ci fi ngeen ko jëmee yoonu liggéey loo xam naa yàlla ko sarafal nangu te yàggal suñu jëm ji mag ji sëñ Cheikh Jëmb Fall barke maam sarafal barke sëñ Mbàkke Fall ma suñu wër taw féex sëriñ Saliou nee na ñu ngi nuyu bokk murid yi fi daje di leen siyaare ci bis bu tedd bii ñu fi dajale kenn rek tax ñu daje fi. te kenn rek tax ñu daje fi. muy Cheikh Ibrahima Fall. muy Cheikh Ibrahima Fall. mbooloo mii. neena mbooloo mi ku leen gis. ku leen gis. nii ñu toll. ni ñu toll. ak nii ñu takkoo. ak nii ñu takkoo. ak nii ñu pasteefoo. ñu xam ni lii ñuy def. ñu xam ni lii ñuy def. lu leen ñor la. nee na lu leen ñor la. bi nee na nuyoo bi nag. dañ ko bëgg a tàmbalee ci. dañ koo bëgg a tàmbalee ci. kilifa yu tedd yii fi nekk. kilifa yu tedd yii fi nekk. nga xam ne ñoog sëriñ bi. nga xam ni ñoog sëriñ bi. ñoo bokk Cheikh Ibra. ñoo waaye ñu ñëw teewal ci ko fi. waaye ñu ñëw teewal ci sëriñ bi. doon fi fi jëmmi sëriñ bi. kon kon nee na ñu ngi nuyu ñooñu. doon ci teg bokki murid yi. di ci teg bokki murid yi. yi nga xam ni. yi nga xam ni. sëriñ bi da leen a jur. sëriñ bi da a jur. ci jurug bëgg. ci ak bëgg. ci jurug bëgg. ci jurug bëgg. ak jurug njébbal. ak jurug njébbal. ñu xam ni ñoom kat. ñu xam ne ñoom kat. li leen fi indi. nee na li leen fi indi. mooy ak njébbal. mooy ak njébbal. bëgg sëriñ bi. ak bëgg sëriñ bi. ak topp ko. sëriñ bi. muy ñii nga xam ni. muy ñii nga xam ni. ñoo sos tey lii. ñoo sos tey lii. di sëñ Mor Ndiaye ñoom ñii. di sëñ Modou Ndiaye ñoom ñii. nga xam ne ñooy soppee Cheikh Ibra yi. nga xam ne ñoo tuddee seen bopp. soppee Cheikh Ibra Fall. boole ci ñëpp. boole ci ñëpp nag. woote bis bu toll nii. nee ñu woote bis bu toll nii. kenn ku ne xam na ni. kenn ku ne xam nga ni. weer wii ñu dëgmal. weer wii ñu dëgmal. ci Baye Fall. ci Baye Fall. bu dëggu. bu dëggu. war naa métti ci moom. war naa métti ci moom de. waaye ñoom dañuy mel ni. waaye ñoom dañuy mel ni. ñu ko xiif. ñu ko xiif lool. yàkkamti ko lool. lool. ndax xam nga ni lii. ndax xam na ni lii. teeru bi ñuy teeru weer wii. nee na teeru bi ñuy teeru weer wii. xam nañ li ci nekk. xam nañ li ci nekk. ci li ñuy jànkoonteel ci. li ñuy jànkoonteel ci. ay coono. ay coono. waaye yëguñu ko. waaye yeguñu ko benn yoon. ndax xam nañ ni. ndax xam nañ ni. lu ci coono rek. lu di coono. ko ëpp. nee na njariñ li moo ko ëpp. loolu moo tax lii. loolu moo tax lii. ñu sos ko. ñu sos ko. di seet fii. di seet fii. ci kër Serigne Touba gii. ci kër Serigne Touba gii. ñu di fi dajaloo. di fi xool weer wi. di fi séntu weer wi. ngir bëgg a liggéey li Cheikh Ibrahima. a waaj dem liggéey li Cheikh Ibra Fall. bi ñuy liggéey nag. nee liggéey bi ñuy liggéey. parce que euh, ndigal la. ndigal lañ ci am de. loo xam ne lii nii. loo xam ni. ci Cheikh Ibrahima ci sëriñam bu tedd ba. moo ko joxoon ndigal. ngir mu di ko def. ngir mu di ko def. waaye loola di dox rek. waaye loola di dox. ba sunu jon yàlla tey. ba sunu jon tey jii. benn yoon. benn yoon. mësta sooxe. mëstu sooxe. ba si tey jii. ba jii. ci sëtam yii. ci sëtam yii. ñu yor ñu yor liggéey bi. muy sëriñ Cheikh Jëmb bi. muy sëriñ Cheikh Jëmb Fall mii. ñii nag. nee na ñii nag. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. mi ngi leen di sant. mi ngi leen di sant de. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di ñaanal. mi ngi leen di ñaanal. ndax xelam dal na ci yéen. ndax xelam dal na ci yéen. xam na ni liggéey ndigal lii. ndax xam ne liggéey lii. ñu ko jox ñu ko jox. nii ngeen ko ko topp toole. nii ngeen ko ko topp toole. ànd ko ak moom. ànd ko ak moom. fas ko yéene di di jëf. fas ko yéene di jëf. nee na xam na ni. nee na loolu xam na ni. yéen. yéen. doon ngeen ñoo xam ne. doon ngeen ñoo xam ni. sagal ngeen ko. sagal ngeen sëriñ bi. mi ngi mi ngi ñaan ci daraje Cheikh ci daraje Cheikh ñu yàgg koo def. ñu yàgg koo def. ndax lii gët. ndax lii. lépp njëriñ la. lépp njëriñ la. kon sëñ Mor. kon sëñ Mu Njaay. sëñ bi dafa waxoon ni. sëñ bi daa waxoon ni. bu nu ñëwee ñu gërëmal leen. bu nu ñëwee ñu leen ko. sant leen. sant leen. ñaanal leen. ñaanal leen. ndax wax na ni. ndax wax na ni. lii gët. lii. bu àndul woon ak ñeeyu yu mel ni yéen. su àndul woon ak ñeeyu xare yu mel ni yéen. yaa xelam du am xelam du mën a dal. waaye dal na. sëñ bi nee na dal na. ndax gis na ne fu mu taxaw na ne fu mu taxaw. su geesoo gis leen. su geesoo gis leen. ngeen nekk ci ndigal li. ngeen kon nee na mi ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci de. waaye nag soññee daa mënta ñàkk. waaye soññee dafa mënta ñàkk. ci jëwriñ ji jiitu. ci jëwriñ ji jiitu. kon nan ko fas yéene. nan nañ ko fas yéene. rafetal ko rafetal ko. sellal ko sellal ko. ne ko borom bëggee woon ne ko borom bëggee woon. nañ ne borom kat. ndax wax nañ ne borom kat. dafa bëggoon muy sell. dafa bëggoon muy sell. bëggul woon ku ko ñam. bëggul woon it ku ko ñam. ba daañu ko daanañ ko seete. ba daanañ ko seete. bëgg mu xam ñor na am ñorul. bëgg xam ñor na am ñorul. ñu di ci jam bant. ñu di ci jam bant. loolee sëriñ bi nee na. loolee sëriñ bi nee na. mi ngi koy santaane ba tey mi ngi koy santaane di ko fàttali ñëpp. bu ko kenn mus xorom. ne na bu ko kenn mus xorom. set gi it set gi nañu tàmbalee ci jëmm yi tàmbalee ci suñu jëmm. ak xol yi xol. ak yére yi ak yére yi. ak yéen ñuy liggéey. ak yéen ñuy liggéeyee. jëmee ko ci sëriñ bi jëmee ko ci sëriñ bi. yooyu it nee na. yooyu sëñ bi nee na. bëgg na nu ko daan defee rek. bëgg na nun ko daan defee rek. ñu defee ko nu ko raw. ñu defee ko nu ko raw. nañu sellal lépp. nan sellal lépp. nan rafetal lépp. na jëmm yi set. na jëmm yi set. na yi ñuy sol set. na yi ñuy sol set. na dab yi set. na dab yi set. yi ñu leen di jox. yi ñu leen di jox. ñu war koo togg. ñu war koo togg. nañ koy sellal. ba mu mel na mu war a mel. ndax loolu kat. gannaaw bu jëkk gannaaw bu jëkk. dafa am nu ñu ko daan dafa am nu ko daan xoolee. te dafa soppiku. te dafa soppeeku. ba léegi ba léegi. demeetul noona demeetul noona. teewul sëñ bi dafa day soññee nag. teewul sëñ bi day soññee. ndax waxtu wu ne xelam ci loolu. ndax waxtu wu ne xelam mi ci loolu. kon dégg ngeen noonu. kon dégg ngeen ko noonu. yéen ñi nga xam ne kenn ku ci ne. yéen ñi nga xam ne kenn ku ne. da yor cin. da ngaa yor cin. ña nga ña nga ña nga jiite. ña nga jiite. na waxtaan ak ñoom. ci bëggug sëriñ bi mu ko bëggee. ni mu ko bëggee. kon sëñ Mor. kon sëñ mu Njaay. loolu na ngeen ko jot loolu na nga ko jottali mbooloo mépp. bu ñu demee ba taal jot. bu ñu demee ba taal jot. bala ñoo taal. bala ñoo taal. nañu wër ku yor ku yor cin. nañu wër ku yor cin. ka ko jiite. ka ko jiite. ñu wax ko loolu. ñu wax ko loolu. loolu bi gën a bëgg. ndax loolu li sëñ bi gën a bëgg. loolu ci la. loolu ci la bokk. bu sañoon li jëm ci kanam sëriñam bi. ndax bu sañoon li jëm ci kanamu sëriñam. di fa taaje. di fa taaje. bu sañoon mu mel na mu war a mel. bu sañoon day mel na mu war kon sëñ bi ñu ngi leen di gërëm yéen itam. ñi nga xam ne dañuy njabootu yéen ñi nga xam ne da ngeen di njabootu Cheikh Ibra Fall gi te lii ngeen bokk koog sëñ bokk koog sëñ mu Njaay ñoom ñii at mu jot at mu jot bu ñu dikkee bu ngeen dikkee fi leen leen di fekk fi leen leen di fekk ba ban ciy tàggoo ba ban ciy tàggoo kon yéen it ñu ngi leen di ñaanal kon ñu ngi leen di ñaanal lii yàlla na yàgg yàlla nañ ko yàgg ànd yàlla nañ ko yàgg ànd kon ñoo ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp loolu la sëriñ bi waxoon ni su ñëwee na ko jottali mbooloo mi kon sëñ Modou Ndiaye loolu la sëriñ bi waxoon kon jërëjëen jëf nee na yéen de kenn mënu leen a fay ku dul Cheikh Rafal mi ngeen jaayante li ko liggéeyal kon jërëjëen jëf nee na loolu rek lañ ci am ñoom nee na seen xol seet na ci yéen guyu seenu taxawaay rafet na yéen a ngi soññ ñëpp yéen a ngi soññi kilifa yéen a ngi soññi kilifa yi yéen a ngi soññi seen moromi donga yi nee na ku bëgg lu baax su xoolee ci yéen dana dox ndax lii ba ngeen ko tàmbalee ba fi mu ne dellu ginnaaw mos cee am da ngeen di boole seenu ñaq ak seen wërsëg ak seenu teewaay fi kanam sëriñ bi nee lu ngeen ci mas a def rek xem ngeen ko kon mi ngi leen di sant baax di leen gërëm gis na seenu doxin sëriñ bi gis na ko bu baax a baax rafetlu na ko bu baax te loolee tàmbalee leen ko ci sëriñ bi ci Seex Moodu Fall la woon ba fi mu toll kenn xàmmeewul nag seenu seenu nekk ak sëñ Moodu Aminta ak nekku sëriñ Seex jëmb dara wóoroowu ci kon li ngeen wax dëgg la ci yéen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf